ngir dara bañ leen a ci ay xibaar yu weex te wóor moo xam xibaaru biir réew wala sax bi ci réew ànd ak ki nga xamante ne ni mooy seen chroniqueur bu Diong dimanche bu jot di la leen defalal ak résumé de l'actualité ngir rekk ngeen daal di mën a jot ci xibaar yi nga xamante ne ni da koy taamoo di leen nafaral l'actualité nationale ou internationale tous les dimanches ngeen mën ci ànd ak ki nga xamante ne ni mooy Agibou Diong mu daal di leen tënkal li gën a siiw waaye tam lu gën a weex ci ay xibaar le résumé fiable et sûr de l'actualité sur SMTV. merci beaucoup ñoo ngi amaan mbégte bu baax a baax ak kontaan di leen dégtal li nga xamante ni moom mooy seen actualité de la semaine. lu gën a fës ci actualité de la semaine bi rek ñu génn gis nañ ki nga xamante ni moom mooy président Macky daal dina teew fële nga xamante ni moom mooy ca Dubaay moom ak soxnaam di Marème fay sàll mais dañu gis lu doy waar ba tax na Sénégal gi yëpp moom la ñuy daal di waxtaanee nee nañ Macky Sall day jël ñi nga xamante ñoom ñooy ay saagakat di leen taf si wetam moom ak jabaram. ba tax na nag ki nga xamante ni moom mooy Awoush Kitty ñi gënoon ko xam mu bokk ci parti bi di parti Pastef doon milité ki nga xamante ni moom mooy président Ousmane Sonko moom ak président Macky Sall ñoom ñoo daal di bokk ay photo ñi daal di ko fësal ci réseau yëpp ba tax na ñëpp ñoo ngi ci wax. Euh, li nga xamante ni loolu aussi ñëpp bàyyi woon nañ ko xel muy ki nga xamante ni moom mooy président Ousmane Sonko mandat. Euh, rabat bu dugaloon lu lépp lu jëm ci wàllum dossier bii nii pour lu koy euh, taxa bokk ci élection yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Cour suprême dañ ko daal di rejeté ay avocat ñooy ñi ko xamle président Ousmane Sonko moomee moom la ñu gisaat ci biir semaine bi mu daal di jël li nga xamante ni moom moo di trente millions lu jëm ci wàllum caution bi mu daal di ko yóbbu fee nga xamante ni mooy CDC. Euh, caisse dépôt de consignation ñi daal di ko rejeté gannaaw ba mu yónnee nga xamante nii moom mooy Ayib Daffé di mandataire u Pastef king boxing bi ñu doon organiser démb fële ci esplanade bu Grand Théâtre kii di Eric Faveur doon ko organiser ñi gis ay combat yu neex daal di fa am batax na kii di Laurent Diago ak kii di. Euh, bu Siteu dañoo daal di def li nga xamante ni loolu mooy match nul li nga xamante ni victoire bi demul fenn ñoom ñaar ñoo daal di tolloo lool la arbitre bi daal di xam xamle ñaale artistes yi gën a siw aussi doon fa amal li nga xamante ni loolu la ñuy woowee freestyle lu jëm ci wàllum rap hip hop Sénégal kii di Akhlou ak euh, Ngaaka Blindé dañoo daal di ñoom aussi def li nga xamante ni lool mooy match ni loolu la jury bi daal di xamle wante dañ fa gis lu doywaar ba tax na kii di Lat Diop jiite wàllum sport ci Sénégal gars yi dafa ñëw ñi daal di sonkoriser stade bi di ko yuuxoo sonko namm nañ la ba tax na Lat Diop moo ngi naqarlu ni ki mel ministre yu bari dañ leen daal di li nga xamante ni loolu mooy seen budget fële ca assemblée nationale wante xëccoo be xaa xëccoo be bi mel na ne tull ak màlle ci vote budget yi nga xamante ni yooyee la député yi di daal di amal ci kanamu ministre yi président Macky Sall moom mooy daal di xamle ba léegi que ne élection moom luy am la donc fu mu toll nii feu bi xas na ba daal di départ élection lu koy teree am ci atum deux mille vingt quatre loolu moom nee na munul gis lu koy teree am ci at bi ñu jëm muy le vingt cinq février ci deux mille vingt quatre ñoo xamante ni ñoom ñoo daal di ŋànk wàllum euh, candidature yi ñoo ñu bëree si ñoom ñoo ngi daal di wéy di dem di déposer ji seen caution fële ca CDC lu mel ni gis nañ ki nga xamante ni moom mooy Idrissa Seck njiitalu parti réew mi. Anta Babacar Ngom gis ki nga xamante ni moom mooy Thierno Alassane Sall gis opposant yu bëri daal di tàmbali dem déposer li nga xamante nii loolu mooy seen caution fële ca CDC bu Sénégal mbokk yi sant leen gërëm leen di leen jox dig daje ba dimanche bii di ñëwaat ci seen beneen actualité de la semaine jërë ngeen jëf.